chers internautes nuy nañ leen euh, bu baax a baax xibaar yi kon ñu doore ko ak lu ñeel dëkk bu sell bi la di Touba gannaaw nag taw yu méttee métti euh, mbaa taw yu bari yi nga xamante nag moo fa daal di am jàppale ne lu toll ci ñaar ci ay doomu aadama ñàkk nañ fa seen bakkan ak nag ay euh, yàqu-yàqu yu bëree bëri ndax nag kër yu bëri fu mu ne nii nag ñu ngi ci biir ndox mi loolee waral nag ba xalif général des Mourides jaarale ko nag ci ku yor kàddum di sëriñ Bass Abdou Khadre daal dinay masaw bu baax a baax askan ba yeewoo ca Touba saako kilifa yu réew mi nag lépp loo xam ne jëm na euh, daal ci euh, xeex wàllum inondation bi foofee ci Touba ñu gën koo daal di euh, gën cee taxaw bu baax a baax jawriñ bi ñu jënk wàllum hydraulique ak assainissement sax di Cheikh Tidiane Dièye ñu ngi koy xarandi ca tubaa fii ak ci kanam tuuti mu war fa ànd nag ak le directeur général bu ONAS ngir nag sànqiralu ne situation yi ak nag dégâts yooyu nga xamante nag euh, taw yu euh, démb yi nag def na ko foofee euh, fi nga xamante nag moo di ca Touba ñu àddu nag wax ci leneen ñu xëy nag ak journal Le Témoin mu daal di fësal nag yenn ci ay personnalité yoo xamante nag euh, fu mu ne nii ñoom lañu nag tere ñu daal di génne réew mi euh, gannaaw nag ba ñu taxawalee lu ñeel wàllum pôle judiciaire ak financier euh, ni ki démb di ab daal bankas boo xam ne dafa jëm ci xeex lépp loo xam ne nag ñenn ay détournement d'argent mbaa sax kon xeet gu demee noonu journal bi nag nee na toll na ci fukk ak juróom benn ci ay personnalités yi fare woon ci ancien régime mbaa sax ci société civile ñu tere leen nag ñu daal di génn fi nga xam ne nag moo di réew mi kon na ci nag ancien député Farba Ngom Aliou euh, Sall maître Bokar Thiam Euh, Félix Antoine Diome maam euh, Mbaye Niang Mansour Faye Manar Sall Gabriel Kane euh, Moussa Sow Puma Samuel Sarr Abdoulaye Seydou Sow Cheikh Oumar Diagne Mansour Diallo Lat Diop ak ki nga xam ne moo di Mame Boye Diaw ñu ne nag liste bi sax mën na daal di yokku ndax it mën nañu fësalaat yeneen ci ay tour nag yoo xamante ñoom itam kon tere nañ leen daal ñu génn réew mii ba tax sax leneen loo xam ne itam fësal nañu ko nee nañ nag comme lu xewoon ak euh, Dadis euh, Camara ba sax Yaya jàmme wala kile di Hissène Habré euh, moom ci fi nekkoon jiite réew di Macky Sall mënees nañu ko toppee nag lu ñeel wàllum crime contre l'humanité wàllum xibaar ba tey ñu àddu nag wax ci sàmmkat bi la di Issa Sow mi nag fekk mu daal di faatu gannaaw ba mu pendre boppam ci ab garab Euh, moom nag fare euh, ca euh, Vélingara Felo nekk ca département bu Linguère amoon lu toll ci fanweer ak juróom-benn ci at nag ñu daal di fekk nag néewam ca route nationale lu soriwul nag station d'essence bi gannaaw nag ba ñu clamé waa élément kon de la gendarmerie sapeur pompier bu Vélingara ci nag la ñu ñëw xool def nag constat ñu fekk nag ci moom ab téléphone portable jamono ji nag li la di néewam daal nañu ko déposé ca morgue bu centre de santé bu Vélingara di région bu euh, Kolda moom nag célibataire la woon boo xam ne nag amul doom bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar yi nga xam ne itam daal dinañu ko euh, fësal euh, ñu jeexal nag xibaar yi daal di àdduwaat comme ci lu ñeel nag teg loxo bi ñu teg loxo ki nga xam ne moo def Ada Fass daanaka yenn ci ay journal dikkaat nañu ci wax nag li ko daal di sabab. jàppale ne nag moom Ada moom moomee sax ba ñu koy teg loxo euh, moom ak beneen mbër nag la di euh, wuyoo ci turu Pokola fare ci écurie Falaye Baldé ak nag benn groupe de jeunes euh, ñu ne nag xew-xew yi la nag mi ngi amee ni ki lundi jàpp mardi ñoom ñaari mbër yooyee nag ak seen ndaw ya ñu àndaloon nag dañu demoon ci ab baax ba nekkee ca Médina janok commissariat bu Médina ngir nag kon passer di bonton gannaaw nag ba ñu jëlee ay casse daal yu ëpp Euh, moom Ada Fass ak ñu mu àndal daal commencé rek daal di dérailler euh, di amal ab désordre Euh, foofee nag euh, ci biir euh, bar bi mu mel ne nag coowaloo yooyee tax nag ba ñu nee dañu koy dàkk ak nag ñamu daal di àndal ñoom nag ñu daal di tëdd ñu daal di bañ ba tëddu ci suuf la ci nag toftalu moom Ada nag ci lekk dañu daal di dóor ay dóor yi metti ki nga xam ne nag mooy borom bar ba ak nag videur yi daal ñu daal di leen dóor dóor yu méttee métti tax nag ba élément yu commissariat yu Médina ba ñu ñëwee nag ci fi nga xam ne mooy ci biir bar bi Euh, ci rek la ñu daal di euh, teg loxo ki nga xamante nag moo di Ada Fass ak ñenn ñoo xamante nag àndoon nag ñoom euh, ñu ne sax ñu bëri ci ñoom sax daanaka am na ci ñoo xam ni dañoo daal di daw ndax nag ba léegi nii kenn tegagu leen gët mu mel ni nag loolee waral kon nag ñu daal di teg loxo ki nga xamante nag moo di daal Ada Fass fare ca écrue Fass benn mbokk yi lii moo gënoon fës ci wàllum xibaar ni ki tey nag ñu yegg ko jaajëfal leen bu baax a baax ci topp bi ngeen ñiy topp ak safoo bi ngeen ñi safoo laata loolu bu leen fàtte abonné su ñu chaîne ngir daane bañ leen naa rëcc suñu ay programme également suñu ay information ñu yendoog jàmm ba subaak jàmm jërë ngeen jëf